ngir xamale leen nag jëmm jooju nag di sëriñ Cheikh Alioune Mbacke moom mooy kan doomu sëriñ Alioune Mbacke la ak ku ñuy wax soxna Faati Lo ngi feeñe jamono nag ci dëkku waajuróom bii nag di Daaru Nahim waajuróom sëriñ Alioune Mbacke nag mi ngi ko tudde magam sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma itam nag la ko jébbaloon moom sëriñ Cheikh Alioune mbàkke nag bi matee dal alxuraanul karim waajuróom sëriñ Alioune Mbacke ci dëkk bii nag di kër Moodu Binta nag ci Luga loolu la ko yóbbu woon fa la nag alxuraanul karim waaye sëriñ Cheikh Alioune nag mokkuluwu foo nag alxuraanul karim ginnaaw kër Moodu Binta diggante nag ci suuf si nag di lugaloo dem na itam nag ci dëkk bi nag di mbaam jigaan mbaam jigaan googu itam nag fa la eggalee njàngum alxuraanul karimam fa la bindee itam nag ak kaamilam ginnaaw bu mu bindee kaamil ci dëkk boobu nag di mbaam jigaan moom sëriñ Cheikh Alioune Mbacke jëlewaat nañ ko mbaam jigaan nag indi ko nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba jox ko nag jëmm ji nag di sëriñ Cheikh Sey Imaam ngir itam nag mu jàngal ko nag lii di xam-xam wala nag mu saytuwaat am njàngum alxuraanam ginnaaw Touba ci loxoy sëriñ Cheikh Sey Imaam yóbbu nañ ko nag ci dëkk bu sell bii nag di Taïf ca kañ ko tuddee nag jébbaloon ko ko nag di sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma mu jébbal ko ku ñuy wax baay sëriñ jiite ci taayifa baay sëriñ jiite moom nag moo ko doon jàngal nag lii di xam-xam ginnaaw bu mu nekkee taayif ci loxoy baay sëriñ jiite moom sëriñ cheikh alioune kii di sëriñ mbàkke soxna loo di doomu sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma daana ko tëralal nag ci dëkk boobu nag di taayif boole koog nag muy jànge nag ci loxoy baay sëriñ jiite taayif itam nag fa la duggee nag école français mu boole koog nag di jàng ginnaaw bu mu jógee taayif nag lañ ko yóbbu njaareem ci jëmm ji nag di sëriñ abdourahim bu njaareem sëriñ abdourahim dem na ko téere bii nag di majaalis boole koog nag mu fay jàng nag lii di ay nasaraan ginnaaw loxoy sëriñ abdourahim dem bu njaareem tam jàng fa nag majaalis ci ndigalul nag waajuram sëriñ cheikh mbàkke gaynde faan ma di turandoom mu boole koog nag école français bi nag di jàng ba ci diplôme bi mu njëkk am sax foofu la ko amee muy certificat ginnaaw njaareem ci loxoy sëriñ abdourahim dem lañ ko yóbbu nag ci dëkk bii nag di ndar géej di saint louis ci lycée bi tuddee bac ci lycée bi ñu tuddee Blaise Diagne ci quatrième année am nag ci la amee bac moom Serigne Cheikh Alioune Mbacke ndax dañ koo soteel benn classe ginnaaw bu mu amee bac nag ci quatrième année am ci lycée boobu nag di Blaise Diagne ci la dem nag ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ci département bi ñu tuddee département arabe ci université Cheikh Anta Diop ci première année nag la fa jógee ñu yóbbu ko nag ci dëkk bii nag di Tunisie mu dem nag ci institut bu ñu tuddee Bourgui des langues ginnaaw bu mu demee Tunisie ci institut Bourgui des langues def na fa itam nag ab diir nag jàng fa ginnaaw bi nag la fa jógee itam nag am am bourse nag dem nag ci réew mi nag di France ci Paris ci Sorbonne ginnaaw bu mu jàngee Paris ci Sorbonne la fa nag dem nag ci dëkk bii nag di Angleterre wéyal nag am njàngam ci école bi ñu tuddee nag Bradford ginnaaw école boobu ñu tuddee Bradford ci Angleterre nag la tàmbalee dugg nag ci li ñu tuddee nag ab yaxantu di jàng nag boole koog nag di commerce ci pièces détachées nag la Serigne Cheikh Alioune Mbacke nag tàmbalee di jaay ay pièces détachées ginnaaw di rakki waajuram ko xamal ne daal na ñibbisi nag ci daar daar bi ngir mën a delsi si waat nag ci réew mii nag di Sénégal ginnaaw bu sëriñ Cheikh Alioune Mbacke wéelee ndigalul waajur woow di sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóodi ba del si waat nag ci réew mii nag di Sénégal sëriñ Alioune Mbacke nag miy waajuram moo ko yóbbu nag ci sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke ngir boole kook sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke di ko xamal ne nag Cheikh Mbacke mii nag sama doom la te jàngi na ba ñëw xam-xam itam am na ko sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke nag moo ko booleeg nag ministre nag de l'Udure di Samba Yàlla Jóob nag jamono jooja Samba Yàlla Jóob nag amoon Mbàkke bii ko Sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou Lahad Mbàkke mu jël ko nag jox ko nag ay responsabilité nag yu foor nag ci nguur gi wala nag ci ministère am boobu nag mu géré muy ministère nag de l'hydraulique mu nekk tim nag ab fonctionnaire nag ci nguurug Sénégal yore fa nag programme tim nag hygiène ci wàllu hydraulique nag ci ministère nag de l'hydraulique ci jamono yi nag président de la république bi fi nekkoon nag di Abdou Diouf ba tey nag ci liggéeyub Sëriñ Cheikh Aliou Mbàkke wala ci jaar-jaaru Sëriñ Cheikh Aliou Mbàkke waajuram Sëriñ Mbàkke Madina nekkoon itim nag magu waajuram di Sëriñ Aliou Mbàkke téere bii ñu tudde woon diiwaan bi ginnaaw buñ bëggee nag mu tasaaroo nag ci àdduna bi sëñ Cheikh Alioune Mbacke itam nag lañ joxoon nag ndigal itam nag ngir mu tasaare ko nag ci réew mi nag di Mauritanie ak itam nag ci réew mi nag di Égypte ba na itam nag bindaat na ko itam nag tasaare ko itam nag ci kàllaama yooyu sëriñ Cheikh Alioune Mbacke dana wax nag lu tolloog nag ñeenti langue muy wolof bi mu nàmp français anglais ak lii nag di arabe xam-xam moom macha allah sëriñ Cheikh Alioune Mbacke moom am na ko ba tey itam nag ci responsabilité sëriñ xalifa cheikh mamadul moustapha mbàkke ci bëccëgug le 4 avril 1986 génn àdduna nag ci bëccëgug le 8 sëriñ Alioune Mbàkke liggéey na liggéey bu am solo nag ci ron waajuram woon wow lii di màggalug daarul bi fi xalifa yi jiitu sëriñ Alioune Mbàkke nekkee ku masaa di màggal-màggal daarul xudóos yow yaa koy màggal ci sa coobarey bopp bi sëriñ Alioune Mbàkke nag toogee nag lii di xalifa daaru xudóos ci xarañ teg sëriñ cheikh Alioune Mbàkke ci la waxtaanee mboo mbooleem nag ñi mu séqal daaru xudóos di leen wax ne nag nañ taxawal génn kuréel goo xam ne nii su màggal gi jotatee kenn ku ne daa yëg ne màggal gi ca nga kon loolu itam nag ci liggéey yëpp sëriñ Cheikh Aliou Mbacke nag la bokk nag ci bi waajuram toogee xalifa daaru xudóos ba tax na itam nag màggaluk daarul xudóos léegi saa bu jotee nag daayira yi taalibe yi sëtti sëriñ Modou Moustapha Mbacke yi ak doom yeeg soppe yi nag kenn ku ne am ci sañ-sañ ba tey itam nag ci yëngutub sëriñ Cheikh Aliou Mbacke wàllu diine itam nag def na ci lu am solo ndax tariixa yi ba tax na it nag yeneen tariixa yi nag saa buñ xewlee nag da nga gis sëriñ Cheikh Aliou Mbacke dem ca nag wala mu yónnee fa ay ndaw ku bëgg nag ak jaxasoo na itim nag ci tariixa yi ba tey nag ci liggéeyub sëriñ Cheikh Aliou Mbacke dëkk bii nag mu doon ci waajuram sëriñ Ahmadou Mbacke tundoo di tabax na fa itim nag jumaa wala ma fay tabax jumaa dëkkub waajuram bii nag di daaru nahim tam doon ne ko nag ci waajuram sëriñ Aliou Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke tabax na fa jàkka ginnaaw wàllu diine jooju nag sëriñ Cheikh Aliou Mbacke nag taxaw te di ci liggéey nag lu am solo mouvement bii oxy oxy gii nag ab mouvement la boo xam ne nag mi ngi yëngutu nag ci wàllu diine ci biir oxy googu nag groupe de presse bi mu taxawal itam nag ci la bootu muy rajo bii nag di Ceeñeer FM ak rajo bii nag di Jant bi FM oxy googu nag ñi ngi ko tënke nag ci O K S I O bi nag mooy organisation K bi mooy xaadimal Moustapha S bi nag mooy solidarité I mooy islamique ci tënk nag mooy oxy ci boole nag mooy organisation xaadimal Moustapha pour la solidarité islamique kon nag mi ngi yëngutu nag ci wàllu diine nag lu bare bare bare nag ngir boole nag tariixa yi ba tey Alioune Mbacke ay kër nag am na ko ci biir réew mi ñaari waajuram yi ak waajuram wi nga xam ne nii kat ñoom ñoo bokk soxna Xari Diop ak kii di Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke muy sëriñ Abdou Salam Mbacke sëriñ Alioune Mbacke ak sëriñ Ahmadou Mbacke tundoo ñoom ñett ñi itam nag kenn ku ne nag wutal na la nag bis nag bu mu lay fàttaliku ñaari dëkki waajuróom yi yiitim nag ci ak kilifteef itam nag la ñuy dox muy Daaru Nahim gi mu doonne nag ci waajuróom sëriñ Alioune Mbacke ak dëkk bi nag di Tundóodi nag gi mu doonne nag ci rakk waajuróom wa sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóodi mu nekk itam jëmm joo xam ne ni ku nangoo sonn la koo xam ne itam li muy nelaw guddi bariwul li muy noppalu itam nag bariwul kuy xalaat itam nag lu sori la jëmm jooju nag mujj na jóge maaw raxmati ci mois de juillet nag 2018 sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général des Mourides jëlaat nag baneen doomu Touba jébbal ko nag kuréel googu nag di maaw raxmati muy ku ñuy wax nag sëriñ Moustapha Dieng ngir xamale leen nag sëriñ Moustapha Dieng nag moom mooy kan doomu sëriñ Ceerno Dieng la sëriñ Ceerno Dieng nag mii nekk nag waa juróom nekkoon na fi nag chef de village Touba Daarul Xuddoos ci ndigalul sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma ci atum 1948 ba ci atum 1983 bi Touba nekkee commune rurale itam ci atum 1976 moom moo njëkk a nekk itam président commune bu Touba ci le 7 juillet 1976 ba ci mois de juin 1983 Serigne Thierno Dieng moom itam nag bi muy génn àdduna ci 1983 moo nekk nag président commune rurale bu Touba ci mois de juin 83 nag lañ ko ñàkk jëmm jooju nag moo meññ Serigne Moustapha Dieng. mii mu feeña jamono nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba bi mu matee dal alxuraanul karim waajuram sëriñ Ceerno Jeng maamam ju ñuy wax nag sëriñ Ibra Jeng ci dëkk bu ñuy wax nag Daaru Raxmaan la ko jébbaloon nag ngir mu jànge fa nag alxuraanul karima ci loxoy maamam nag sëriñ Ibrahima Jeng la jànge nag alxuraanul karima ginnaaw maamam nag sëriñ Ibrahima Jeng nag ci dëkk boobu nag di Daaru Raxmaan lañ ko dugal nag ci école nasaraani ci école Mbàkke 2 nag la jànge ci dëkk bii nag di Mbàkke Bawal la fa la amee itam nag diplôme bi mu njëkk am muy certificat ginnaaw bi nag la fa jóge dem nag ci dëkk bii nag di Ndar Géej ci lycée bi ñu tudde nag lycée Faidherbe ab diir bu néew nag la fa def ñu jëlee ko nag ci lycée boobu nag di bu nag ci Ndar Géej yóbbu ko nag ci beneen lycée ci dëkk bii nag di Kaolack muy lycée nag Gaston Berger ci lycée boobu nag la amee bac mu dem nag ci dëkk bii nag di Ndakaaru ci université nag bi gën a mag nag ci réew mi muy université Cheikh Anta Diop ci atum 1979 la am maîtrise nag en droit ci atum 1980 ba ci atum 1982 la nekk nag ci école bi ñu tudde ENAM école boo xam ne nii nag day tàggat ay administrateur ci école boobu nag la génne ci atum 1982 ci 82 boobu nag la génne nag ci école boobu nag di ENAM nguurug Sénégal nag jël ko def ko adjoint administrateur nag ci commune nag bu Saint-Louis ginnaaw bu mu jógee Saint-Louis nag lañ ko yóbbu itam nag ci dëkk bii nag di Kaolack ba tey itam nag mu nekk fa adjoint administrateur ci commune nag bu Kaolack ginnaaw bi itam nag lañ ko jëlee Kaolack yóbbu ko itam nag ci dëkk bii nag di Fatick mu nekk fa nag administrateur municipal ci commune nag nekk nag ba ci atum 1990 ci at moomu nag di atum 1990 la nguurug Sénégal nag supprimé mbooleem nag luy administrateur municipaux ci réew mii nag di Sénégal Moustapha Dieng mii nag ñu jël ko yóbbu ko nag ci administration territoriale ci administration territoriale nag ci la nekk nag ba jël retraite turandoo moo Modou Moustapha wi nguurug Sénégal nag jël ko ñu def ko nag adjoint gouverneur ci région bii nag di Kolda ginnaaw bu mu jógee Kolda lañ ko indi itam nag ci région bii nag di Thiès ba tey itam nag mu nekk fa adjoint gouverneur bi ginnaaw bi nag lañ ko jëlee Ceesa yóbbu ko nag mu nekk préfet ci dëkk bii nag di Dagana ginnaaw bu mu jógee Dagana nag lañ ko indi itim nag mu nekk préfet ci dëkk bii itim nag di Mbuur Géeca ginnaaw Mbuur nag lañ ko indi Jurbel mu nekk fa itim nag préfet ginnaaw préfet bu Jurbel itim nag lañ ko yóbbu Dakar ci département bii ñu tuddee Rufisque nag mu nekk fa préfet ginnaaw bu mu jógee nag ci préfecture lañ ko yóbbu nag ci gouvernance mu nekk nag gouverneur nag bu Kédougou ginnaaw bu mu jógee Kédougou nag lañ indi nag ci région bii nag di Kaffrine mu nekk fa la mujjee jiite nag ci wàllu administration Serigne Mountakha Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Bachir Mbacke jël ko nag ci mois de juillet ci atum 2018 def ko nag njiitul maawu raxmati mu nekk nag ñeenteelu njiit nag ci kuréel gii nag di maawu raxmati maawu raxmati googu kilifa ya fa jaar nag nii la tëddee ci mois de mai 2006 ba ci mois de janvier 2008 Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Alioune Mbacke nag moo ko jiitee ci mois de janvier 2008 ba ci février 2011 Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Moussa Mbacke moom Cheikh Mamadou Bachir Mbacke nag moo ko jiitee ci mois de février 2011 Serigne Cheikh Alioune Mbacke nag daa dellusiwaat itam nag ca kër ga nekkaat nag njiitul maawu rahmati ci mois de février ba ci mois de juillet 2018 ci mois de juillet 2018 la Serigne Mountakha Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Bachir Mbacke jël Serigne Moustapha Dieng def ko nag njiitu maawu rahmati jëmm jooju nag di Serigne Moustapha Dieng ci ñi ko xam bu baax nag te di ko fréquenté wax nañ ne nag soo ko gisee nag da foog ne nag xamul dara ndax tey gi ak noppi gi te fu mu wéete nag ma ngay jàng alxuraanul karima maamam ja def ca moom alxuraanul karim di sëriñ ibrahima jenn sëriñ ibrahima jeng moom itam nag bari na ci ay kilifay daaru xuddoosa moo xam doomi cheikh mu moustapha mbàkke yi wala lenn itam ci sëti cheikh moodu moustapha mbàkke yi moom itam moo leen jàngal alxuraanul karima gal alxuraan